Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la hilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Mbokki entunoti ñu ngi len di nuyu di len di siyara di len di ñaanal way di sakku Mu melni ki ñu ngi ci fanu gam ñu ngi ci fani gam senegal yi gep machallah allah magal màggal tuddu Sayyidina Muhammad sallallahu Alaihi wa fa tabarakallah nonu la len si njaboot ha di ni ñuy ha solidarité ak kilifa ya fa nek machallah allah ngi ndokele aduna bi yep si gam gi soxna jaay al hadji Modou gay suma len tuddé rek tudd naa ñépp waaye noonu la ñuy ndokkale sunu kilifay diine macha allah sunu jokkuwaay si tarixa si Ahmed Tidiane alxaji Omar Tanyang, ñu koy nuyu diko ci si wala bu Modou Tanyang bu alxaji mbacke Tanyang si Jurbel tabarakala ñu ngi leen di nuyu di leen di siyaara di leen di ndokkel waye di sakku seen di si nuyu sunu khalifa way jurmay al alxaji Cissé ñu koy nuyu bu baax di koy siyaara si mawlud bi nga xamne ne macha allah depuis wayjur bi nek fi at mu jot macha allah mu ngi koy taxaw taxaway bu rafet rafet di nuyu Khalifa alham alham alhaji sering babacar si mansour serigne babakar si mansour ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal bu nu ko nuyo rek nuyu nan njabootu maam Maodo Malick yépp macha allah di si nuyu sunu soppee macha allah njool Fouta sëñ Mansour si Jamil tabarakallah Maodo si Dabaax ñëpp nu ngi leen di ndokkeel si mawlud bi nu ngi leen di siyaara nu ngi leen di ñaanal fa tabarakallah di sàkku seeni ñaam di nuyu sunu wayjur sunu wayjur Serigne Mourtala Mbacke xaadimu rasul di koy siyaara si mawlud bi di ñaan yàlla yàggal ko fi lool lool tamand ak wér macha allah waaye sunu sopp bi sunu wëllëre macha allah di ko xam ne yalla nu boole yàlla nu boole si baatin muy seriñ Abdou Karim Mbacké Falilou makarimul axlaax dañu koy nuyu di koy siyaara di koy di koy ñaanal tabarakallah di ñaanamit waaye di nuyu xalifa Cerno Basir Taal ñu nuyu bu baax macha allah koy ndokkeel si mawlud bi koy ñaanal waaye di sàkku ay ñaanam fa tabarakalaa sunu way jur bi alxaji Abdoulaye Thiaw Laye ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara fa tabarakalaa li ma koy waxee lu bari rek mais yàlla dogal na ñun duñu xëy ba jot soo te barkeelu si maam li maamu Laay ndax sunu lépp bo paasee njaarim gi nga xam ne fi nu fekk baax fi la nu juddoo sunu lépp danaan buntu lii say maam li maamu laay bu géejawaay fa tabarakalaa sunu lépp rek macha allah buntu géejawaay lanu yàlla booleel waaye ba mu nu boolee géejawaay daf noo samp si buntu liise ba fa tabarakalaa di nuyu njabootu imaamul mahdi laay yëpp macha allah di leen di ñaanal di nuyu fa tabarakalaa sëriñ Mahi Niass Kaolack xalifa ñu koy siyaara fa tabarakalaa di koy ndokkeel si mawlud bi Cheikh Ahmed Tidiane Niass Léona ñu ngi koy nuyu bu baax macha allah di koy siyaara waaye di koy ndokkeel si mawlud bi fa tabarakalaa ni ma ko si début bi di nuyu sunu njabooti bopp muy Wadduha solidarité muy njaboot goo xam ne dañoo tënku si diineeg sunna doon xam ne biit fa tabarakallah dañuy góorgóorlu seen kem kem kem kattan si ndégalu yàlla waaye di góorgóorlu seen kem kattan di moytu safaan muy njaboot goo xam ne depuis 2016 la sosu mu tuddee ko Wadduha solidarité mu bëri lool lool lool ay membre macha allah defe naa ne am na groupe whatsapp boo xam ne ku si it bëgg a bokk rek soo jokkoo soxna Adja Aram nga xam ne mooy présidente bi wala Alhaji Modou Guèye tabarakallah wala sëñ muntaha wala ñi ne ci bureau bi yef tabarakallah ko si jokkar ak dina la mëna wax yeen yoon ngay mëna jaar ba mëna bok ci si wadu ha solidarité kon bu nu nekké ci xew-xew bu mag ni gàmmu nga xamné lu nuy mag rek fa li ya ko gëna mag da nay jaadu nu nuyu siar len. leen waaye danay jaadu nu ndokkelen fa tabarakallah si mawludu nabi rasulu sarif bi nga xam moom la ñu bàyyi kon fa tabarakala vidéo bi tey loolu la woon vidéo nuyoo la ak siyaar ak ndokel ndokkeel jullit yi ndokkeel suñu kilifay diine waaye ndokkeel wër la yëpp si xew-xew bu màgg bi fa tabarakala di ñaan yàlla yàlla bu mo nekk sunu mujjanteelu gàmm di ñaan yàlla it fa tabarakala yàlla may nu nu am nu am ngërëmu gàmm fa seen mbokk la woon Alxaaji Modou Cissé asalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillah